وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم صالح ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اقرأ كتابك في بنفسك اليوم عليك حسيبا من يهتدي فإنما يهتدي لنفسه ما أوحي إليك من كتابك laa badale kalimaat wan rek min duni multaxada jàng ak jàngale ñor ko waral mu samp daara ji ci Touba Daaru Manaan ci diwaanu tali bu bees daara ju ñu samp atum 2006 daara joo xam ne jamono ji ndongo yu bëri ñu ngi fiy génnee di mokkal alxuraan waaye tamit di daloo ay junni junni ndongo. noo ngi am ak leeral ak fàttaliku ndax dina tax nga mën a gën a soññi sa bopp gën a mën a góorgóorluwaat gën a jëm ci lépp loo xam ni dafay tax liggéey bii nga xam ni moom lañuy ñuy liggéey te di ko liggéeyal ko tedd ki Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñu def ci rek ay taxaw seetlu ci ni ngeen ci bëgg a xamee ñu ko mooy sosuwaayu daara ji ak fan la tàmbalee. atum 2006 ba 2022 daara ji am jaarwaay yu bari laataa mu yegg ci fii lu ko dalee ci biir këram gu mu xaajoon ba daara yi benn mbaar ak ñetti néegi gabling daara ji tey di royuwaay. daara ji mën nañoo wax ni. ginnaaw bi nu bàyyee ñun ci sunu bopp yoroon daara daan jàngale ba jëmmi jamono yàlla dogal ñu ñu bàyyi ko nekkaat ci yeneen yitte kon lii tax fondation bi dëgër mooy loolu bi ñu koy taxawal ci atum 2006 ci ak tënk ci la daara ji taxaw biñ koy taxawal nag te bu ñu tëb rekk ngir egg si fi nu yegg si wala ñu taxawal ko te am ak ay jafe-jafe na am daara ji dafa tàmbuli ci mel na ni ci loo xam ni fa la daara war a tàmbulee mooy dafa tàmbuli ci ñu njëkk def li ñuy wax ah, booy dugg ci kër gi am na benn cour bu nekkoon foofu foofu lañu defoon menn mbaar ndax biñ sosee kër gi taxawal sunu kër goo xam ne kër dëkkuwaay la ci wet gi dañ fee defoon ah, dañ fay xaajaloon loo xam ni alxuraan moo ko moomoon ñu defal fa li ñuy wax am mbaar ba tax na ay doom ñu baree bari ci jege fu bari ci jamono jooju daan fa ñëw ak ñenn ñu dëkk ci koñ bi waaye bi ñu doxee tuuti yàlla dogal ñu amaat pàkk boobu tey nga xam ni mooy daara ji dëgg-dëgg foofay tëbu ñu tëb ngir tabax boobu ne fa bañ fa demee dañ fa def mbaarum seng ak ñetti néeg yoo xam ni dañ koy wax ci ay gablin sëriñ daara yi dëkk ci benn bi dongo yi dëkk ci benn bi ba yàlla dogal ci ñu dem ba jëmmi jamono ci 2012 ci ñu gën a yëkkatiwaat daara ji bu baax ba taxawal fa loolu ngeen gis te mooy bâtiment boobu fi nekk wala tabax boobu fi nekk nga xam ni mooy daara ji ci biir loolu it njàng mi amoon ak sooxe lool lool lool ba yàlla dogal euh, niñ bëggee woon mu mel ni dëgg-dëgg ak yéene jiñ ci am ak yitt ji def nañ ci ñun sunu wàll waaye amaguñu ci dagg dëgg li nu li nu bëgg mooy njàng mu yeex ak it ñaaree xale yi conditions yi ñu nekk jafe-jafe yu metti lool. ma xëy bis sax ni damay far léegi kat euh, segam njaboot gi ma fi yor man sama njabootu bokk ak ñenn ñi ma jox bariwul te mën naa leen a gàddu may gëstu daara ju ma leen yóbbu. ba ci laa dem gëstu bañ boole maag ku ñuy wax sëriñ xaadim ñaŋ ñëpp miin ko ci mu yor daara ju mag di jàmbaar lool liggéey ci alxuraan liggéey bu kawe liggéey bu yéeme ma dox ci guddi waxtu timis woo ko ni ko dama amoon daara waaye nettali ko lii ma wax te mu jiitu waaye muy nekk nag nit koo xam ni macha allah nit ku mën a tege ci aw yoon noonu laa koy jàppe ndax bu nit demee ba découragé wu ba war a wiññeeku dajee nit ku baax ku mel noonu mu sëfaat la dangay mel ni kon kooku mooy ki nga xam ni tey fu daara ji yegg ab taxawaayam a ngi ci bu rëy lool muy sëriñ Xaadim Ñang bi ma ko ne dama lay indil sama gone yi ma yor ci kër gi ak ñenn ñi ma indil ngir fay ku ne xam na ni mënoon na ni indi leen ndax dama ko dama jubloon yóbbu leen doon leen fay waaye mu ni segam taxawal nga ko ba mu yegg si fii bul def loolu donte kenn dafa nekk di jàng alquranul karim moo gën kon bàyyi lu ñu def ci ay pexe ci laa ko jébbal liggéey bi jébbal ko daara ji mu boole maag ku ñuy wax sëriñ aale ñang ñëpp min ko ci daara ji mu ñëw ñu war taxaw taxawaay beneen bu am solo ci loolu nag ci la ñëwee moom it sëriñ xaadim moomu ànd ak sëriñ aale ñu sos ñu sosaat sof sof ko ci li fa nekkoon ba tax na résultat yu yi ñu am ci at yi ñu di ko am ci lañ jóge nag macha allah nag mu nekk daara ju tegu ci yoon woo xam ni mel na ni euh, ni nu ko bëggee woon amee nañu ko sax nu kawe suñu njort waaye daal su ma ko doon tënk daal ci ci ci ci ci ci ci lu gàtt mooy himma daal moonu ci wax yittewoo ko mooy daal bu ñu doon wax jaar-jaaru daara ji loolu mooy daara ji mooy daal ci mbaar la commencé woon jóge ci mbaar dem ci gablin tey mu egg foofu ñuy wax bâtiment boo xam ne foo mën a taxaw di ko séen kon mel na ni daara ji jaar na fi daara di jaar mooy lii cosaanul daara mooy tàmbalee ci lu ndaw di màgg jëm ci ci kawe ndongo yu takku dafi mokkalee alxuraan mokkalin wu sell firneel na ko naafile yu ñuy amal ci weeru koor dongo yi koy jiite yépp ci daara ji lañu mokkalee alxuraan ayu bés bu nekk daanaka ñu lim fi ñu ko mokkal mokkal gu set wecci ànd seeg bind ko maanaam beqi loolu macha allah moo tax ma wax ni ñu sant ci yàlla bu baax euh, xale yu bari ñu fay mokkal alxuraan mokkal gu leer naññ sax ndax damay wax ni leen buñ ko def yëfi commerce dañ koy def jàngale dëgg mooy ñi fay jàngale sëriñ bi bu bu taxee ñuy mokkal baax dama leen di wax ni leen man maa warloo di leen neexal ci lu mën doon kon damay bëgg mokkal gi nekk mokkal gu gu wér mokkal goo xam ni du doon rek mokkal goo xam ne da ngay jóge mën a fëtt wala nga fàtte ko xale yu bari ña ngi fa jaar nañ fa ay sénération génération jaar nañ fa mokkal alxuraan ba tax na sax gis nga ñun ni ñuy nattoo dañuy dañuy boo mokkalee fokk nga bokk ci koor gi maanaam nga mën a taxaw ci bokk ci ñuy naafila nga xam ne fokk ñu sélectionné mel na ni ren jii ñii nga xam ne ñoo doon naafila maanaam nga xam ne ñoo naafila naafila gu rafet gu am solo ay xale soo ko seetloo ci ren jii lañ mokkal maanaam ñoom lañ doon natt waaye kon mel na ni mokkal moom waxatuñ ko mënuñoo toog lu mat semaine bu kenn wàccul fii may wax ak yow am na ci ñoo xam ni mokkal nañu ba ñoo war a jëm ci war a tari ndax xam nga boo demee bay tari rek juróomi isib di ko nafar kon mën ngaa bokk waaye nag it li ma leen di bu ñu yàkkamti nañuy fexe ba xale bi bu génnee mokkal gu leer nañ buñ mokkalee ba pare yemuñu ci dañuy indi mbindum àlluwa ci biir daara ji maanaam dañuy wax li ñuy wax beqi ndax ba bis bu set ñi mokkal wala ñi wàcc euh, ba comme at yi dafa gaaw te xale yi dañu gaaw màgg ku wàcc rek dañ lay force ci nga dem di jàng bind diggante bi ngay mokkal dana fekk nga mën a beqi gaaw mën a bind loolu it am na ci am na ci am na ci daara ji waaw loolu it ba tey lu am solo la mooy jigéen ñi sax macha allah dafa mel ni booy xool jigéen ñi ni góor ñi toll rek noonu la jigéen ñi toll mooy ñetti classe yu yoo xam ni ñoo nekk ci suuf di ñetti sëriñ daara boo demee ci kawit ñett fa nekk di ay sëñ daara yu yor ay jigéen te jigéen ñi noonu la ñuy mokkale macha allah ñoomit it ñoom it macha allah ñoo góor ñi ñoo yem ci fànn googu maanaam ni leen di toppatoo rek li li wuute rek mooy yor jigéen dafa xaw a gën a metti ba tax na it foofu yemuñu ci waaye dañuy jël ñoo xam ni euh, bu leen sëñ daar yi jàngalee ba pare ak jigéen ak seeni i waajtaay ak ya cay xew yëpp it dañuy jël koo xam ne dañ koy tuddee seen bàjjen mu ne ci biir di ku ñuy wax soxna màggat nga xam ne moom lii liggéeyam ci biir daara ji mooy waxtu wu ne moo war a nekk ci jigéen ñi di leen jàngal euh, ginnaaw bu nu jàngee ba noppi nu ñu mën a xamee seen kër ndax ëllëg jigéen moom dafa war a dem yanu ab responsabilité bu rëy jigéen jooju nag dañuy fexe ba euh, diggante bi koy jàng ñu mën koo jàngalaale ci nu ñu mën a defee ba fu fobeere nu ñu mën a defee ba maanaam togg nañu ñu mën a defee ba lay nu ñu mën a def ba mooñ yooyu yëpp donte duñ ko yanu yanu dëgg-dëgg waaye buñ ko ñu di def dañuy fekkee di jàng ci biir loolu kon jigéen ñi a amaale nañ sans sot duñ yem rek ci jàngal leen kese waaye dañ leen di booleeg soxna ya fa nekk ñu leen di tarbiyé waale di jàngal nan la jigéen war a mel bu ëllëgee bu demee këram. sëñ Maxtaar boole koog pédagogie bu mat lool si wàllum jàngale taxoom ak ndongo yi nekk loo xam ne lu ràññeeku la waaye tamit gën a taxoog ñi nga xam ne ñoo gën a pësteefu ci njàng mi ñi mokkal nekk ay xaritam soññee saa su nekk diggante moom ak ndongo yi ñi nga xam ne ak njabootam dëgg lañu njël gi sax benn la diggante kër gi ak daara ji. loolu lu am solo la mooy maanaam ñi fay jànge ñenn ñi nekk suñuy doom ñenn ñi nekk suñuy jarbaat ñenn ñi sax mën nga leen a tuddee ñu nekk ñoo xam ni daanaka duma leen xàmmee ak doom yi nekk ca kër ga nga xam ne mooy loolu nga wax mooy suñu diggante maak dongo yi. mu nekk diggante bu am solo ndax xam nga xale ci ni ma ko jàngate même lu mu mokkal mokkal lu mu jàmbaar jàmbaar ku ñuy nax la ñoom suñ daara yi nag bu ñu leen jàngalee ba noppi les gens man léeg-léeg man may ñëw ki man war leen a nax nag ñu war a mën a góor góorlu mooy léeg-léeg damay ñëw fekk ki nga xam ni miin nañ ko ci man dafa wàcc maanaam kooku day doon sama xarit bu bees kon ki wàccagul bi su seddee gën a wàcc ki mokkalit da koy rawati maanaam bis bu set ci biir dongo yi dañuy dem ñoom sax dañ may maanaam du doon baatub jóob waaye su ma suñ ma séenee may ñëw ndeysaan dañuy wax naan kan la xaritooti su ko defee may laaj diw fu mu toll soo ma nee damay tari robo man la si yow nag tey moom yaay sama xarit maanaam woola ci kaw woola jàpp sa loxo ñëpp yi gis ma ànd ak yow yëg ci kaw yóbbu la ba sama biir néeg maanaam nga xool li la soob la fa ne nga jël ko wàcc rombaat say morom dana soññ ñii nga xam ne dañoo nekk ci seen ginnaaw boo mokkalee rawatina loolu buur ngay doon daanaka soo mokkalee moom buur ngay doon ndax bu ma ñëwee euh, génn ba ñëw jóge ci sama tukki su ma ñëwee du waa kër gi ñooy wax lu ñu bëgg a añee wala lu ñu bëgg a waaye ci biir donga yi ñi ci mokkal wala ñi ci gën a jàmbaare ñoo naan nangam lañ bëgg a añee suba ñoo naan lii lañ bëgg a añee suba dañuy dem bu mujj diggante man ak ñoom jige giñ may jige sax gëm naa ne jige wuñ ko seen i seen waajur ndax dañ may miin ndax xale noonu la baaxoo euh, te ma bu ma jógee dem wuti su may ñibbisi du ma jàppati ni njaboot gu ndaw laa yor damay jàpp ni maa ngi fa war a fekk deux cent yu may xaar maanaam ñeent ñaar téeméeri xale yu may xaar mooy dama leen war a yóbbul sërica te kuy yóbbul ay sërica nag say doom dangay seet la gën a taa neex la gën a baax la gën a rafet nga xam ni waaye nag loolu it bu ma koy defit dafa ànd ak ful la maanaam defuma ko rek ngir xale bi mën a yëkkatiku bàyyi ñeneen mi wala lu la neex def déedéet dama koy dama koy def noo xam ne dafay équilibre mooy bu ñu waree wax waroo jàng ma war laa teg ci yoon danga naan kii kat du ki ma xaritaloon démb waaye su ma la waree neexal da nga ni kii kat mooy ki gën waaye su ma la waree yedd wala mu war laa wax wala nga def sax loo xam ni dafa defuwul dama lay sanctionné danaa la war ni la kat nag mere naa la ci biir donga yi su ko defee nag loolu mooy sama diggante ak donga yi ci nga gis sax macha allah photo yi ngay gis. Euh, bu ma toggee buñ toggee loo xam ni lu xaw am solo la comme ay mag dafa nekk ci suuf sax damay bañ ñoom ñu tubbaate ko man sama bopp maa leen di woo ñu ñëw ñu àndandoo ko ndax lan xañ kañ leen ngir ñu gën a góor góorgóorlu ngir ñu gën a seenum xel gën a daw ndax liñ xamoon ci daara mooy da ngay ubbuntu yi ñenn ñi dañuy daw ndax dañuy dem ba dañuy mel ni seen kër baay la ñuy ne ndax ñoo doom yi ñu jur ñoo yem te kër la boo xoolee dangay xam ni kër ak daara la waaye ñoom ñëpp ñoo ci bokk yem ñi nga xam ne dañ faa ñëw te doon ay doom yow ma mën a tudde doomi jàmbur sañ-sañ yi ñu am ci man ñi ma jur amuñu ci man maanaam ñoom ñoo gën a mën a am accès ci man gën a mën a wax ak moom loolu nag liñ ko li tax ñu man ko mooy liggéeyu alxuraan bi te liggéeyu Sëñ Tuubaa bi te xam ne xale yi ñooy bul xam kan moo war a mën a taxaw ëllëg ngir yow taxawu la bul ko jàpp rek sa njaboot la ndax lépp ngi ci biir njaboot gi mooy kenn kuñ fay jële du bëgg a dem ko ba feet yi lu mu bari bari dañuy yàkkamtee ñëw su ma tukkee ñoom ñooy wootee di laaj kañ lay ñëw su may dem it dañ naan kañ foo jëm nga xam ni kon diggante boobu noonu la mel noonu it laa mel ak sëñ daara yi ndax loolu lu am solo la mooy sëñ daara yi ni ci kër gi dama leen wax ni leen fii kër la daara la daara kër la maanaam fu ngeen fi yem yéen a fa yemle seen bopp maanaam bu xasee tëju daara la ñun ñëpp ñoo fi bokk yem ñun ñëpp dañuy doon benn ñooy bokk lu ñuy lekk ñoo bokk lu ñuy reere ñooy bokk lu ñuy añi maanaam amul lenn lu moo tax lu ñu fay def day nekk loo xam ni dafay ànd ak pois ndax li ñuy def toggal kenn ni toggal ñett nit yomb na waaye toggal ñaar téeméeri nit ak i sëñ daara yow sa bopp nga ciy añ sa njaboot di ca xéewlu loola maanaam moo fa am maanaam amuñu daal lu ñu fay ber maanaam bool bii wala bool bi lu ma lu ñëw ci man ci sama saal rek ma war koo jëfandikoo su ma wàccee ci sama xale yi dinaa ko fa fekk loolu mooy sama digganteeg xale yi ginnaaw njàngum alxuraan mu sell mi te ñu settantal ko ak mokkal gu wér gi nga xam ne ndongo yi ñu ngi koy mokkal fii ñu ngi leen di tàggatit si li nga xam ne moo di njàngum àdduna franco arabe buñ fu bi mu toftalu si njàng mi waaye tamit jàngale li nga xam ne moo di wàllum liggéey nekk na li nga xam ne bokk na si jubluwaay yi maanaam formation professionnelle. loolu it am na ndax xam nga boo demee ci daara ji ci biir daara ji ba tey xam nañ ni mokkal alxuraanul karim am na solo ndax képp ko def ak jagleeg sunu borom la. waaye nag soo ci jógee da ngaa war a xam ni am na leneen lu nekk sa kanam te mooy xàddina mooy nga dem am sa àddina jéem a góorlu kem ni nga xamee noonu lañ la jàngale woon nga mën a taxawaat feneen ba tax na ci biir loole bi ñu doxee tuuti dañ daan am bu ñu amee sunu ñu mokkal alquranul karim dañ leen di génne ci biir daara ji ñu dem jàngi feneen école loolu nag yàlla def na ci sutura ba léegi ku mokkal alquranul karim da ngay mën a dem li ñuy wax jàng ci biir daara ji am na benn ay classes yu fa ne yoo xam ni dañ ko tuddee école franco arabe kër maam awalo mu ngi ci biir daara ji nga xam ni boo mokkalee ba noppi dootoo dem ndax ñi mokkal fi mu toll ne bari na ñoo xam ñi ngi toog foofu di continuer di jàng jàng moom it nag procès yi ñu ci am doyul mooy njàngum nasaraan wala njàngum arab kese doyul waaye dañoo bëgg fexe ba dugal ci biir njàng mi ñu ngi ci ay xalaat tey ñaan sëriñ bi mu jàpp lañu ci procès yooyu mooy li ñuy wax métier maanaam fexe ba jigéen ji suy génn bu ëllëgee bu mokkalee jàng alquranul karim ba pare jàngale français mën a def li ñuy wax mu def ñaw wala mu def li ñuy wax céréale maanaam mbirum ak yooyu ñu waxoon léegi bu dee ci góor ñi ñu jëm ci man mën a def du mel ni mécanicien wala électronique wala yeneen ak yeneen ci xeet yoo xam ni ñu ngi ci xalaat yoo xam ni dañuy bëgg dongo bi bu ëllëgee dafay mën a nekk koo xam ni même lu mu mën a doon bu nekkee ab docteur wala mu nekk leneen wala mu ci meneen métier yi wala mu nekk mécanicien dana mën a nekk imaam maanaam dana mën a jóge ci fi muy liggéeyee dem ci jàkka ji maanaam dana mokkal alquran xam diineem waaye amaale métier mu mu yóbbu loolu mooy projet yi nga xam ni ci yooyu daal ci lañ gën a jublu ci lañ gën a jëm nga xam ni daara ji dafay mel ni dafay génne ñoo xam ni dañuy doon nit koo xam ni nit ku société bi soxla lay doon ku réew mi soxla lay doon addina nag des ko war a jàng loolu am nañ kon xalaat yoo xam ni projet yoo xam ni teg nañ ko te yaakaar naa balaa yàgg danañ ci gis macha allah ay yoon yu leer yuñ ci teg yoo xam ni dañuy fexe ba gone gi bu mokkalee alquranul karim bu jógee foofu day mën a dem dëkk nit koo xam ne day am métier mu mën a yóbbaale hmm, loolu mooy procès yi. daara ji janook moom jumaa ju mag ju ñuy jullee fi nga xam te ni bii ndong yi koor gu jot ñoo jiite li nga xam ne moo di naafile yi si alxuraan ju sell jumaa ji taxawaayam taarixam sëriñ bi si dellusiwaat na si. mu taftalu it njàngum majalis goo xam ne dañ ko fiy amal ngoon gu jot. waaw kon bi nu defee li ñuy wax sos daara ba am ci macha allah ni ma ko waxee ci ànd ceeg ñu am solo ñooñu. ñu ni ah kon nag comme dañu defoon 2006 ba léegi ci biir kër gi amoon na foo nu yettoon lu yem tuddee woon ko jàkka defoon ko jàkka doo ngay doon ci julli bu koor ñëwee fa lañ daan naafila ndax 2006 ba léegi ñu ngi naafila téereb suñu borom bi ci biir yi ñoom ñoo koy aayaloo ci la yàlla mi nga xam ne nag lu mu sottal mu sotti euh, fii daara ji jàkkaar lool dox ba dugg ci suñuy loxo te mooy pàkk boobu ngeen gis bi mu duggee ci suñuy loxo it euh, ma di xool ci foofu nu dëkkee euh, ñu bëgg lu baax ne fa muy waa bi di ay jaamukati yàlla waaye gis naa ni dañuy dem fu sori dem di julli ji bu ajjuma ñëwee ñuy déplacé wu fu soree sori te man kat pàkk bi yàlla dogal na dugg na ci samay loxo kon sama warugar mooy boolewaale ko ci liggéey bi ci laa taxaw nag daal di nag bëgg loolu ñuy wax liggéeyal ci sëñ Touba euh, muy jumaa jooju ngeen gis muy jumaa joo xam ni damay wax ni euh, li daan wax jàmbaar amul kuñ dimbali moo am ndax terrain bi biñ ci jotee dafa mel ni macha allah xéewal dafa daal di ñëw gu rëy gu màgg bi gi ñëweet ma xayma lu joo xam ni dafay dëppook jamono ci plan bi ngeen gis ci liggéey bi ci melokaan bi ci yëpp mu nuru lu diis waaye booba diisul ndax bu ma sañoon wax damay abbu li sëriñ bi waxoon maanaam laata may sumba jumaa ji dafa fekk li koy defar ne fi ba noppi nga xam ni dama doon wax sax ni leen ñi nga xam ne ñoo yor jumaa ji ak ñi ma ko dénkoon ñu doon financé bu ma fi jóge woon te jumaa ji parewul sax li koy liggéey joxe naa ko ba noppi moom ngeen gis ci jumaa ji noonu ñu liggéey ko liggéey boo xam ni ñu ko doon liggéey macha allah lépp boo ko tënkee ci at la toll maanaam liggéey bi ci at la toll muy pàkk bu jéeme pàkk boo xam ni maanaam lépp lu yoon ndox dafa daan nekk ba nawet war a ñëw wa ilaa ñu woo ñu ko manq kon ñu war a jël nag liggéey bu metti mooy fondation bu kawe bu xóot liggéey bu wér ndax ni ma ko gisee rek comme dañ ni kuy liggéeyal suñ borom bëgg nga mu fay la te jaare ko ci sëriñ tubaa te kuñ bëgg kuñ ku ñuy fay da ngay bëgg ñu fay la la gën la gën a rafet ma ne kuy lebal suñu borom wala kuy liggéeyal suñ tubaa dangay seet la nga xam ni moo gën a rafet ci jumtukaay yi ya ci jamono jooja nga wut ko loolu mooy cosaanu jumaa ji maanaam dafa mel ni daal dañoo génne jumaa ju ndaw ji ne ci biir kër gi wala jàkka ju ndaw ji nga xam ne daango yi ñoo ko moomoon yóbbu ko ci biti ndax lan boole ci jullit yi nga xam ne ñoo dëkk ak ñoom ñoo wër foofu am na ca beneen daayira boo xam ni moo nekk foofu ñu leen di wax ay tut tànk yu jàmbaare yoo xam ne seen bëgg-bëgg ñoom it dañ koo sëf ci liggéeyal sëñ Tuubaa ci xasida yi ak alxuraanul karim ñooñu lañ ci lënk lool ba ñu cay def liggéey bu am solo euh, nga xam ne mën naa caa jiital sëriñ jëwrin ñoom ak ñi mu àndal ñoom ñëpp waaye li ci gën a yéemeeti sëñ bi taxul ñun daara ji ñu york ci biir kër gi bi ñu defee loolu yëf yi dafa mel dafa gën a yaatuwaat soo doxee tuuti daaraa ngi joo xam ni dafa jàkkaarloog jumaa ji lu mat ñaar téeméeri gone ñi ngi fay jànge lu mat ñaar téeméeri ko ne ñu ngi jàngee ci daara jooju ku ñuy wax sëriñ Maam Mor Mbàkke yor leen loolu it ci liggéey bi ci la bokk mook daara ji benn lañu ndax ña fa ne dama leen ni woon bi ko waa koñ bi gàddoo ma gisoon ni kat sama njaboot lañ samay jarbaat lañ te lu baax loolu war naa cee man a dugal sama loxo ma ni leen léegi nañ ma bàyyeek lépp loo xam ni dafa jumtukaay ya fay ne mooy ña fay jàngale la ñu war lool ma war lool ko te ñuy jàng ngir yàlla ñoom dem di ñibbi boo seetloo daara jooju rek lu mat 400 personnes ma nga ca kon loolu mooy cosaanul jumaa ji maanaam bëgg la goo xam ni dañ ko yéene woon ci gox bi foofu bëgg la goo xam ni dafa amoon ci biir maanaam daara ji jàkka ñu génne ko waaye nag yàlla def na ci sutura liggéey nañ ko ci at ci lañ ko liggéey ba yaakaar naa koor gi jàll def nañ fa waxtaan yu am solo def nañ fayit maanaam nu mu tuddati naafile yu am solo def nañ fayit maanaam ay jàngat yu am solo ci biir daara ji ci biir jumaa ji soo duggee am na benn cours bu ñu fa def boo xam ni lay suñu mébét lay suñu bëgg-bëgg mooy def fa jàngukaayu majalis boo xam ni ñi yor daara ci koñ bi wala ci fu ñu mën a jóge dañuy mën a ñëw di jàng si ngir yàlla euh, ku ci am sa ndax loolu dañ ko gis ni ñoo xam ne dañu jógee ba foofu dem di jàngi ji jumaa ja danay sori ci ñoom wala ñeneen ñoo xam ne dañuy jógee ba feneen dem di jàngi dana gën a sori waaye bu ngoon jotee wala suba heure bu leen ko may da nga mën a yor sa téere ci téere yi sëriñ bi ba nañ koy defee ci jumaa ji nga mën a ñëw ñu tëral la nga dellu sa kër ñu def loolu lépp ngir yàlla loolu mooy projet jumaa ji ñu ngi yemle foofu waxtaan wi ndax leeral la woon rek ndax ñi war a xam-xam fi daara ji ci sow euh, ba yegg si fii te loolu bëgg la woon kon nag ñi ngi sant yàlla bu baax di sant bu baax ndax liggéey la boo xam ni mel na ni yan woon nañ ko mu diis waaye nag am na ñuñ ci aw mooy ni ma ko waxee rek sëñ daara yi ngàcc galaama ndaxit am ay sëñ daara yu yombul euh, ci jamono ji ñu ne ci daara xam nañ li may wax waaye ñoom ñooñu kenn ku ne ci sëñ daara yi da jàpp ni daara ji sa daara la. di sant ñi yor waañ wi ñi nga xam ni moo tax xale yi macha allah ni ma ko waxee seen xel dal bu baax ci waxtu wu ne midi boo nga xam ni bu ñu waree añ añ mu mu gaaw ndax dañoo war a dem noppalu ji ndax ku yeewu quatre heures du matin ak heure nelaw yi di di sant ñii nga xam ni buñ jàngalee ba noppi ñooy ñëw dugg ci biir seen biir di leen toppatoo di tax ñuy sangu li tax ñuy tëdd fu baax di toppatoo seenu set di toppatoo li nga xam ni mooy tax xale bi xel mi dal kon waa koñ bi ñoo ngi leen di sant bu baax ci li nga xamee ni biñ ko tàllalee jàpp ngeen ci muñ ngeen ba lépp loo xam ni lu nu yéene la bu ñu sañoon mbedd mi ak këñ bi ak fépp foo xam ne moo wër daara ji ba jàll fa nga xam ne sunu bët sax mënu fa yegg dafay dëppook li sëriñ bi ñaan ci Touba. te fonk dëkkandoo mooy li war ci ab julit loola nag ñu ngi leen ciy sant di ko jiital ci sant sant googu munuñ cee ñàkk cité ay tur tur yi ciy sute mooy ku mel ni sëriñ Fallou Mbacké buñ ko tuddee ñëpp danañ ko xam ni ngi ci koñ bi doon kilifa waaye macha allah xam nañ seen taxawaay ci jumaa ji ak ci jàkka ji. waaye nag sant bu baax sëriñ Aafiya Mbàkke sëriñ Aafiya nit ku wayef nit ku baax waaye di ca beral loxo nag di jël cant gi di ko teg ci ki nga xam ni mooy chef de bi wala chef de noonu lañ ko chef de quartier sax moo gën muy sëriñ Bàcci Ba nga xam ni macha allah moom ci ubbikoom ci yaatuwaayam ci xam li nu bëgg cant googu nag kon day ñëwaat rek dugg ci bi daara ji jaar ci sëriñ Ali sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ni moom la gone tuddee wàlluk imaam nga xam ni moo nekk imaam ji sëriñ Cheikh Boussa nga xam ni macha allah ci wàllu waxtaan sëñ Abdoul Ahad Lo ci lépp loo xam dafa jëm ci organiser taxaw fii yar xale jubbanti noonu lañ koy jëmalee ci ñëpp ñi nga xam ni ba ci sëriñ Cheikhouna Sylla ñoom Sylla ñoom ba ci ñi nga xam ni bu ma limee danaa juum soxna maam jaara ba soxna màggat ki nga xam ni mooy yor xale yi sëriñ ñas ak ñoom ñëpp bëgguma lim di bàyyi kenn ba ci nga xam ni mooy seenu ndeyu kër di soxna Ami Mbàkke te xam ni macha allah moom it ci liggéey bi ci la bokk ndax wàllu togg yi ni ma ko waxee wàllu tubaate wàllu xool ndax waxtu yu jot na wàllu xool ndax li ñuy lekk baax na loolu yëpp moom lañ ko sas. di ñaan nag sëñ Muntaxa sunu borom yàggal ko fi te gën koo wéral ndax daara ji xam ne liggéey bi. yéen yóbbu nañ ko war nañ ko jumaa ji joxe na ci ndigal ñaan na ci bëgg na ci ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax te jamono ju ne ki fi nekkal sëñ Tuubaa bëgg-bëggam soo ci soo bëggee loola ànd ci ak moom da nga cey gën a am lu kawe sa njor loolu mooy lan mooy nga gis ni lii nga xam ni mooy université bu rëy bii mu taxawal di ci liggéey dafa mel ni mooy ndeyu daara yëpp te ku xam sëñ mu taxaa xam ni xam-xam ñor na ko lool kon yal na fi yàgg te ànd ak wér te ñu ngi dégg lool ci liggéey bi di bég lool ci taxawaay bi jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين